mbéte rek la am mbéte bu rëy euh, jël coupe bale ñëwaat jëlaat encore coupe nii mbéte bu rëy la quoi su ñun tey tey feete la quoi pour ñun tey parce que championnat bi gëj nañ ko jël trop euh, ren ñu ñëw ñu jël ko feete la bu baax a baax su ñun euh, ainsi moom amuñu dara loo xamante ne moom la ñu war a prouver encore fii tam ci club bi quoi. waaw demi-finale moom ñu koy waajal bu baax parce que soxla nañ ko soxla nañu doubler. ren quoi soxla nañu doubler daal soxla nañu jël championnat bi jëlaat encore coupe du Sénégal bi incha allah demi-finale dañuy ñaan borom bi rek mu jàppale ñu gagné ko quoi incha allah.